ibrahima bayi ñaasi waliyullah ibrahama alhamdu mutlaqan li zati baari suma salaamuna ala almuxtaari basri lwujudi markasi al asraari sirri suuni majmu'at anwaar xaqa qadri yawma yi ci lislaam ci liimaan ci lexsaan waa ci lexsaanul lexsaan ñoo ngi nuyu jamaa bi yëpp ndokkeel di wax ne man tey sant naa yàlla waaye maa koy sante Baye Mamour Niass lu tax te mooma Franck Locousse te Franck Locousse daga na ci képp koy wuyoo Cheikh Ibrahim Baye daan na wax ne man Cheikh Ibrahim dem Màkka jaar ci mbedd yum sam jaaro rek doy na mbaa ma xool xooloon mbaa mu dégg lu mu déggul kon luñ ciy déggee ñu ne tamit lu cay jàngee ci loolu tey ñëwoon nañu Kousi dëkku Cheikh Ibrahim source bi nga xam ne borom bi subhanahu moo ndoxal ci moom xam ko oote moom kon source fayda bi fii ci Kossy kon tey ñëw nañ Kossy ñun ci daraja yi Baye Mamoune Niass ñu ngi leen dëkkee baax ci loolu. li tubaay wax léegi ci na alwadu sirru ab bi yow yaay ku baax doomu ku baax doomu ku baax doomu ku baax ay Ablaye Niass dafa baax Baye Niass dafa baax sa baay baax baax ko yaay ku baax doomu ku baax doomu ku baax doomu ku baax zakruni barku bari na maxaaniya haqqan wasalahan wa naqawul hawaliya تهبله بكوسي وهي كلهم رخود سبحان الله ñi seen dal ba ci kuusi mbokk yi xam ne léegi loo la jeexal na jotaay bi xam-xam bu doon jeexal mën a jeexal ñi wax ñëpp seen wax talikul pie subhanahu wa taala bàyyi moo toog kuusi ba mu yàgg mu ne man Cheikh Ibrahim yonent Yàlla Muhammad mu nga neeri ñëw ànd ak abou gën sa jeex di ñëw fii kuusi di ma gën si man Cheikh Ibrahim waaye ñu ngi jigéen ci benn waay bu ñu ngeen xaw ma jàll nga xam ni nga waxee tool yi ci Bustantala bi ñëwee ci man ci Ibrahim ñu dal sama kër waa jur bu góor ma ay abañes man daay may ni kii maal boo yën seen tëddee alal nga tëddee man daay motu ci digg bi waaye kon luy bàyyi luy yonent bi luy Babacar luy bàyyi yéen daana Muhammad mooy masar waaye Ababacar ni ko ndebe Seexu Tijaan Ababacar ni ko ndebe Seexu Tijaan baay xaq yore la waxal ngeen baay yes nee ne dañ ko laaj Cheikh Ibrahim yow dañ ko ci benn barab dañ ko laaj baay yes ne ko yow Cheikh Ibrahim ana kër mooy mu ne boobu gëm sa biir waa ji wóor ñëwaat ci baay ne ko baay ma ne ko ah bàyyi ñaari wax ci benn parab ma ne yow xanaa xamoo ne Abu Bakr Siddiq tajjali mit yadikum bi rabbaani radiyallahu anhu kon ñu sant daal baax ci loolu kon su bàyyi woyee bii tër ci ab lal seetaan tër ci ab lal bàyyi tër ci ab lal kon lii xam nga lii leer la lu neex la moo tax bàyyi juddoo juddoo fan tay ba ne seet wootee koo si làqu mi da bàyyi te du làqu ndax mooy bàyyi bi muy de bi muy bi bi muy dund dafa bind moom Cheikh Ibrahim mooy jàmm bii tey bis dana ñëw gars yi sanga sangar ñu bi su lay ndóoy déedéet isan saraful waaruuna an daf lu jusuti bakiti bi ak yàlla yoomi kii mooy Cheikh kii bu kenn wax dafay dee nee na man du dee moo waxal bopp ñu waxuñ ko ñun daal moo man rek mu ne kooku dee ñu ne ko dee mu ne kooku bu dee ab uh-huh. fan la ko wax bàyyi ñes na mën a afalak samsu diini ismatata su muhammad wara salama dalaay bàyyi fu mu ne mu ne wuloo fi ayat yi wuloo fi qabla ayatun fa taxaxeena fan wa sakmi intiqam dëgg la eh dëgg dëgg kan may Cheikh Ibrahim bàyyi mooy koo xam ne moo taxaw bàkku sampu défi ci àdduna ne àdduna bii ki fi man mooy Cheikh Ibrahim xalaaxira mii man mooy Cheikh Ibrahim xaajale nii ki nga man mooy Cheikh Ibrahim moo tax mu ne fëlii fi tarikal xat mi ahmada mën haju ama tarikal xayri laa atan nahaju tarikan biha tufajirani kulluha waajo fi ilin walaju akaftu xalaba bu humaan waay waay waay bàyyi si waay seen ñu lay gërëm borom us borom discours bu neex bi comprendre bu set bu sell bi bi laa jógee wax naa ngi lay bëgg a wan na te wan naa la beer na ba ma lay wan naa la wan na parce que nag maaxam Europe bi ngay jéem dafa neex li ngay wax ci Baye dafa rafet taari ko Baye yëpp ñëpp fa joxoon ko koy wax sëñ bi nag ñooy nekkal ba ci kaw dëggam ngay lay mel da ngay man ragal yàlla dal am tubaay na man aw ma dal man xam nga moom tax aw ma dal Baye tax aw ma dal wax kattan ma fat yi hindi ma ko xanaat Baye moo tax tax famaaqatuhu fi sharqi wal xarbi fot fotam fuy jëm lu tax bàyyi ma ne wallim la pourquoi pas waaye ne yow ma hay ni Muhammadu sara fi haykali warubaay woo si ma ne kulluhum si waaye man xam na ji asraha waay ay bàyyi les gaani ay na barhamu ebi ba maa barhamu ta for fii waaxamu la waay ni fol bu Cheikh kon ñu ngi ndeke ñëpp di leen gërëm baax sëñ bi kontaan baax tombar ba rafet na taaru na doyoon na sax ci yow bi leen sëñ doyoon na laal lu neex mu doy rek lu neex du doy waaye nag bàyyi na laa ko mii nga xam ne moom moom dëkk bii moo ko sant dafa waxoon ne jara talabul axla gis nga li tax ma ne bàyyi man bàyyi ko wax mu ne wuma ko bàyyi mu ne jara talabul axla bi hukmi li hakim bi anni muhalla rahma kullu huluji talaqahum minni kullu wajhin mujarrabin sababtu ba am ne xëy na mëri ji on taxalak bi en mahabbatan yana tellement bisami aridi mahabbatuhu xuuti o unsi onusi fo diri iyakti bi jode furoji nan sata ba don dokka sene be gënal la baax yaa may occasion bu rëy di ma ñëw koosi ñoo naa ba tey nag waaye ñëw bi ak yooyu ñooyu bëggu ñoon day ñëw individuel la xoon man kenn war kii yar yaa ma invité ci dëkk Cheikh Ibrahima Koosi te yow yaay yow yaay yaa ko wax léegi la yaay gar yaay xaadimu lan Abdou Mazharu Zati masal sifa mooy ismu mooy Cheikh Tidiane zaatu mooy Cheikh Ibrahim ko yaay abdu mahor sufo saati an go ndeke ɗo bayi labbayka lahumma labbayka labbayka la sarika laka labbayka ina amna wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbayk ahla wa sala ñu dëggal baax ñu lay jaar baax di tërgal baax te bi yaa baax yaa sell yaa set yaa yaay borom lijaaba yaay borom maqaama yaay borom sidqu yaay borom ixlaas borom tubaay borom muraqaba borom mushahada borom maa di fa maa ngi dëkkal baax di ñaan subhanahu mu defal jàmm seen yàlla yàlla xale bu ndaw nga yàlla defal nangu barke yàlla bàyyi tegal loxo daay man xoolal ko yërmande bu rëy boobu bàyyi tegal loxo aar la ñu aaree asamaan si yàlla yàlla yokk sa maqaama yokk sa lijaaba yokk sa martaba xool bu gudd am na wér gu yaram yàlla may xel mu dal ak xol bu dal ak cër dund ko teey dund ko sell dund ko neex dund fii aljana dee aljana dekk aljana kon fii nga dëgg bala ngay dee ajana yomal xiyaamate bàyyi noonu ñu xarfal yàkkam duñ ko li ngay doxee ajana ay lekk ak naan ak yooyu ajana xam may xam yàlla ajana mooy xam yàlla moo tax bàyyi des radaw ay mbiram du ay ay karaw daxay nii daf ne kas fii fil asma wa zikri la ay xayaat yi istabadr jam jaxi góor gi ngeen góor gi ba du ma gis mbërëk gi gis mbërëk mooy lan mooy ëguñu ay mbóoti yu dof yooyu di naaw jaw jaww ji yooyu bàyyi mooy jaww ji jaww naaw jaww da ngay tële bàyyi moom jaww ji bu yàgg bàyyi dafa judd première année mu jàll deuxième année mu jàll toog avion naaw avion ci ci bàyyi naaw toog année bàyyi la avion naaw xam nga tax yónent bi dafa jàll cheta ya bàyyi naaw saraytu bi ruuhi axtaru gisma ahmad fa tàmbali taw bàyyi naaw kat bi li si karaaka iktisaasu fa ruuhi bi gismi tayrun sakanal xafsa maa ngi nuyu ba dee ziara dinañ ndokkeel di nuyu xadra bi yëpp di nuyu jàmm yàlla sëndi akbar imaamu rakk bi dëkk na bu baax imaam am nañu doon dëkk baax di nuyu say naay ak say waaye di nuyu encore une fois soppi yàlla bi tam ni ñu koy uppkaam nu mu tuuti jeng saala bàyyi jeng saala bàyyi jeng saala bàyyi xool moo jeng saala bàyyi maa ngi leen baax bàyyi ku set nga ku baax nga kuñ liggéey Cheikh Ibrahim liggéey nga liggéey bu bi góoru Foydingo magoru Foydingo zaatu Foydingo bàyyi yaay ñëw yaa baax ay Dramé jaajëf ay Dulaay non maa ngi dëkk ñëpp ay maa ngi dëkk ñëpp maa ngi ziar ñëpp lamb yi jeex na bàyyi ubbi lamb ji lamb ji jeex maa ko wax gis nga Cheikh Ibrahim dig bi yàlla doon bindee àll bàyyi na ne man loxo jara xalabul axla bi hukk mi li xaatim yi bi anni mohalla raxma kulu xuloo ji waaye maa ngi sant yàlla baax bi nuyu di leen di leen ndokkeel di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jaajëf bi Baye Niass di kuus dégg ñu Baye isaas mu na koo nattale kon yàlla yàlla saxal leen ci loolu amiin Baye amiin ni nga waxee dégg nañ ko waaye li ngay wax loo sax yow xamoo ko jërëjëf waaye comme wax bi du jeex incha allahu taala dañuy toxal kàddu gi gannaaw bu ñu gërëmee sànq bu baax lool lool lool waaye dañuy jox kàddu bi al muqaddamul baraka Cheikh Ousmane Dieng nga xam ne mu ngi nekk fii ci Kaolack saa saa di fa liggéey liggéey bu am solo moom Cheikh Ousmane moom bàyyi na ci waaye li tax ñu tuddee ko bés bii xam ne dafay liggéey xadara bi. te mu dëggu ci moom mu gën loolu waaye su nekkoon leneen yaakaar naa ne du am tur wi waxuma ne daraja la wala mbooloo wala alal déedéet damay wax ne taalibe Cheikh Ibrahim li ngay woote mu dëggu ci yow te taalibe yëpp dafa dëggu ci ñoom man lañ leen a tuddee lu nekk rawatina koo xam ne fee mu nekk xam nañ dafa nekkoon te dañ fay dem ba léegi am fa ay soppe danañ daje moom ci ay jotaay foofu waaye liggéey na fa liggéey bu rëy bu yaatu kon Cheikh Ousmane ñu ngi lay jox kàddu gi waaye di la gërëm bala ñu ko jox kàddu gi rek ngeen baal ma ba présenté zakiru xadara Cheikh Ibrahima Ndaw nga xam ne agsi ne léegi incha allah moo nar a an ak ñun ci guddi gi fii ci pays bi ànd ak sikarkat yu bëri waaye di leen présenté Cheikh Hadj Abdoulaye Cheikh Mountakha Niass nga xam ne place bi miin na ko mi ngi nii gis nañ ko si jotaay bi waaye dinañ présenté nit ki noonu Cheikh Ibrahim ibnu Cheikh Ousmane Ndiaye nga xam ne mi ngi nii toog ci wetu Cheikh Abdoul Baqi ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp. ba léegi doomu Cheikh Mouhamadul Mansour ibnu Cheikh Mouhamadul Mamoun mu tudd Cheikh Mamoun mi ngi nii teew. sëriñ bi bismillah di fàttali ne moom ñu ngi koy rendre hommage ci bés bii Cheikh Mouhamadul Mansour nga xam ne turam yi wuyu na ko nga xam ne dundam bi guddut ci baaxir waaye li fi def lu bari la te lu yaatu kon sëriñ bi ñu ngi ñaan yalla yow yàlla guddal sa fan lool yàlla dëgëral la lu raw lu mu dëgëraloon sa baay yàlla ba ne loolu yàlla ko yàlla def bi jaay Seydil kon ñu jox Cheikh Ousmane kaddu bismillah

asalaamaaleykum wa rahmatulah. alhamdulilahi rabil aalamiin wasalaatu wasalaam ala rasulillah. sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi nuyu ñëpp góor jigéen mag ndaw sangu yu góor yi ak sangu yu jigéen yi. ji ji jiital njaboot ak Cheikh Ibrahim ñoom ñi nga xam ne ñooy biddiw yi wala ñooy jant yi wala ñooy weer yi suñ ci noppee ma teg ci sama sëriñ Cheikh Mouhamed Dramé moom mi nga xam ne buñ ma xamee moom moo tax ca sama kër laa ko waxoon nag du ma jël kaddu du ma wax ndax wolof dañu wax ne ko am kuddu du lakk munu maa ne sama kilifa ba pare di jël bi wax mu mel ni dañuy xëccoo leneen te man Baye Dramé mooy sama sëriñ mooy sama kilifa ku ko bëgg rek bëgg naa la ku ko xool xool naa la jàng seela baay jàng ak koo mën a doon ak noo mën a mel ndax li tax ma bëgg bàyyi li tax ma xam ci bàyyi li tax ma am ci bàyyi moom laa ko jëlee la boo xam ne muy bàyyi ci Cheikh Sadem radiyallahu anhu mu mag boobu nga xam ne bu gaa yi nekkee ñaar ñetteel na leen bu nekkee kenn ñaareel na leen bu nekkee ñeent ñett ñekk ñeenteel na leen bu nekkee ñeent juróomeel na leen bu nekkee juróom juróom beneen na leen bu nekkee juróom benn juróom ñaar na leen comme asaka na wax na ne am na xam-xam lu dem ci fukki xaaj ak lu teg musuñ ko ko laaj lu ci benn xaaj dañ ko laaj ci ñaar fii sëñ boobu dem na yóbbaale xam-xam ndam boo xam ne amu caalam lii ko ko ko sa laaj kon nit ñi amuñ dayoo jaam bi si moom te moom jaam jaamal ci doon bàyyi. Sénégal ba dañoo am tawféex ñu ànd ak bàyyi jox ko lépp fekk nañ ko xam duñu am liñ bëgg mukk lu dul ne jox nañ bàyyi li mu moom ci ñun wax léegi wax na ne yàlla di jàmm mooy bàyyi dana naqari dégg dana naqari dégg waaye ci wax ne ala nafsu wala awsaq ma maa lay taxa salaam fi kulli min rabbi kooku boobu fi dara kon suñ ko tuddee maqaama mu ko jox rek xewoon na ko wala xenoon na ko wala doon na ko man nag wax dëgg yàlla su ma sañoon sama sëriñ si Abdou Baaxi Xasan Dem Seydi Baye Mamoun Ibrahima Niass moom mi ma boole ci bis ba boo demee ci ñu tuddee lii dafa bëgg a dimbale rek kon su ma àndee mbokki taalibe yi ñu def délégation ñëw ci bis bi dañuy ñëw rek pour wane ne ñun indi nañ suñu sayu mat pour bécc ci burma Cheikh Ibrahim bii nga xam ne fi la ñëpp naanee wala liñ naanee fii la fii la fii la ban dina Souleymane doon na bëgg a dundal adduna bi benn picc bu ñëwaat ba dugg dem jàpp nañu saraan saraan mooy soccet jox ko ne ko maa ne ko dimbalee yoo xam mu gis Souleymane dafa manqué waaye dafa jox ñu ko bañ ko fàtte kon ñun ci ñeneen ñooy jeexal dañuy bañ rek bàyyi fàtte leen bu bëgg suñ bëggee fàtte mi ne ah waaye maa ngi ñëwoon nañ fa def aussi waaye ñëw nañ dara say man su boobaa da nga xam ne liggéeyal nañ bàyyi donte benn lax dara gërëm nag di jëriñ juróom ci taseeg borom jamono woon nangul te bàyyi mooy borom jamono mooy borom jamono nga xam ne du am xarit boo jàngee Muhammadun lim na yonent yëpp 337 Muhammad la nekk boo tuddee Baye wala al ahad mooy kenn ki nga xam ne ci la lépp bokk ci la lépp ñu fi moo tax. yeneen ñoom bu wootee gannaawam woote bu am njëriñ mel ni bii woot na mu tëj waaye kenn dootu woote ci kaw suuf maa ne dul gëm yàlla bàyyi moom la. ci tarixa ci jàng jàpp kenn dootu tarixa jàng jëriñu tarixa bi lépp ci tarixa ci jàng ci bàyyi jàpp dañ xam loolu. wala su ma waxee waxal ñu dama dox dama dox ne yàlla nañ def su fekkee fekkee nekk ci dëgg yal nañu yàlla xaral ku ànd ak ñun nekk ci jaaxaan yal na la yàlla xaral. allah allah. إنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم يلا كنت تكبر برهاما وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يلا كنت للبقر برهاما فسميتك

jërëjëf yaa Ousmane. kàddu yi rafet seen. ñu ngi lay gërëm ci kàddu yi rafet yi. waaye li nga def li nga jeexalee ci laaj bi alhamdulilah. kon programme bi mi ngi rafet mi ngi woy di dem fii ci pause barab bii ñu ne nag mooy l'islam Alaaji Ibrahima Niass fii la njëkk la ci suñu li nga xamante ne moom mooy alquran. jërëjëf sëriñ. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi sant yàlla. di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yàlla yokk sëpp ak leer taas mu Cheikh Tidiane di baana waaye yokk ñu mëdal ak mahabba moo doon Cheikh Islam Alxaaji Ibrahima Niass radiyallahu taala sama kàddu bi na ci mujj gu la man jàngu xew gi waaye rek dama bëgg a wax dara ci jumaa Kossy gi moo tax ma jël kàddu gi pour wax ci jumaa Kossy gi waaye wax ji di jeex jàngu xew gi dana gërëm soppe yi fi teew ak ñi di jël kàddu sang yu tëdd yi yéen suñuy mbokk ci yàlla jumaa néegam yàlla la وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا yàlla moo ko wax ci alquran jumaa yi yàlla moo ko moom fii ci Kossy gii ñu nekk nag jumaa ji nga xam ne moom lañ jàkkaarloo nii maanaam mi daj na àddina waaye tabaxu zaahir bi dafa daanu dafay màggatoon bay amatul sécurité jamono yi xalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass keroog maa ngi doon gàmmu Kossy Thiamène imaam fekk moom foofu imaam Habibu dama dëkk bi la waxtaan nañ donte ne man ci yow. dañoo hmm. bëgg a jël ndigal dañoo jël décision pour suba la ñu toj jumaa keroog lañ ko toj jàpp mu at bi waaye yaakaar naa ne soo ñaari at fi mu nekk yaakaar naa fi ñu jàkkaarloo fi mbaar mi yem fi la jumaa ji nekkoon yaakaar naa dara bi tàllal ma rek ngeen di gis ak armeli kuusi yu tedd yi ci kanam amul jumaa waaye nag mooy jumaa yi jumaa yi bi ñu demee ñoom ci Papa Cheikh jël ndigal ci moom pour toj ko mooy leen nañu tabax néeg bu ñuy jullee yàlla foofu la ñuy jullee foofu léegi <coughs> am na jamono imam Habib ak ñeneen doon nañ ci wax benn benn taalibe yi ñu ciy def ñu am fu mu am na fu mu toll waaye xëy na soriwul nañ ko bëggee yàlla xam ànd naa ci waaye daal li may ñaar jàmm yàlla yi fi teew képp ci yàlla mën loo rek imaam dana jël kàddu dafa a wax ci loolu a wax ci tax ma jël kàddu avant muy wax mën na jàmm xeebu du ma wax mën a wala mën a waaye sama yéene yàlla xam na ko moom bind te jàmm bu xeebu am naa yéene ci jumaa ji waaye nag yàlla baax na lii nag bëriwul deux cent mille la maa ngi koy teg ci loxo imaam bu tàmbalee ko yéene ji ëpp na lii allahu akbar waxat ni ngeen baal ma mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. kàddu yi de sëriñ bi moo ma jox ndigal ma wax ko rek dama ne ko naa ko ci tegal juróomi tonn suba juróomi tonn ciment suba incha allahu rabbi. waaw jërëjëf jërëjëf Youssouf Ben Dioloum président département bu Kaolack ki doon wax sànq wax na ne yow def nga ci jumaa ji waaye loolu day wane ne jëf ju baax du jeex kon li nga wax nangu nañ ko nii dañ ko bëggee ndax jotaay yu mel nii yomb sang yu tedd yu baax yi nga xam ne bàyyi rek lañ bëgg waaye nag wa taawanu alal birri wa taqwa kon 200000 bi ma ci def wallaahi xeeb naa ko parce que muy 200 millions wala milliard waaye ëpp na loolu aussi ëpp na loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah allahu akbar. macha allah macha allah. fukki tonn suuf ma ne tegal naa ci Seyda yaa ne na jàmm yeneen juróomi tonn muy fukki tonn allah. mi am na loolu commission baa ngi imam Habibou bi tey fi incha allah naayibam imam Moustapha mi nu wax mi ngi fi waaye itam borom dëkk ba léegi bu yàgg mi ngi toog ci jotaay bi tey tam mi fi ak kan di ñu wax euh, ki coordonnateur yi organisation bi ci dëkk bi di way ci ndigalu njàmbu xew bi muy alaaji jëbba bi tey dana wax ci kanam ñooñu kuy rek jiital imam dañuy joxe fi yëpp nañ ko teg ci loxo kuy joxe leneen tamit dërëm ku am ñaari junne ku am ñaar téeméer ku am million yàlla na ngeen am xaalis ku am lu ko ëpp defal ku am ciment comme ni président département bi def waxal na bindu te sàmm sa moo taxoon ma jël kàddu tàmbalee ko incha allahu taala maa ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla mottali ci waxtu yi bu ñu ñëwaat ci journée internationale dellu ko si bëgg bàyyi gannaaw aj ci weeru ci sawa seen di hijja ak bu ko foofu lañ koo kale léegi incha allah comme ni ñuy xaaree gàmmu mit na bàyyi weeru guddi fukki fan ak ñaar ci rabiul awal gàmmu juddu Cheikh Ibrahima ci Taïba guddi fukki fan ak juróom ci rabiul ci ci Cheikh Rajab rabiul awal bu yun sasana noonu tamit dañuy xaaree eh, dégg nga journée internationale dellu koo si bàyyi noonu moom benn noonu niñ dellu koo si dellu bi nag dellu maanaa la ndax mooy dellu si jikko yi fu waay nekk rek bëgg bàyyi yaay koo si waaye newoon na Eh, yonent bi wax na ko waaye yoon moom foog na sax tax mu dellu fa waaye am na lu ko wóor ne dégg nga donte dundal ko ci tabax baax na mun na ko bàyyi waxee am na gëfër naa ko gis yoon maa ko defoon alfayda waaye nag dellu ci ci kuy góos yi mooy xaaral mooy xam-xam mooy maarifa mooy di dund yàlla mooy di yàlla mooy xam yàlla mooy nekk ko te muy lu wér moo tax a ñu béy bi bàyyi ma noonu di zaahir shari borom ci salikina bila shakki wala rayb zaahiru sharia ci xam-xam yi bu leer lu mu bind moom firi ko loolu xam naa xëy na aar bi ne bi laay noonu lañ cee xuus waaye lu doy waar la loolu mu bind mooy wax ji foofu la lépp nekk waaye mu ne firi alquran duñ caaxaan yéen saa dafa aaye ni di firi alquran ci xalaat yi boppam su ko defee nag laaj nañ Sidna Ousmane Sidna Ali rek ndax yéen ci am na lu leen bàyyee yéen taalibe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne nii dégg nga dafay ko jégal ma ne dégg nga dinaa nga wala kon ba am ndigal ci fay yàlla moo tax bàyyi ne mu doy sëkk waaye doyul da nga xam naxu da xam bayaan yooyu yëpp waaye nag li ci ëpp solo mooy muurun fi qalbil muslim leer boo xam ne dafay nekk ci xol yi kuy firi loolu mooy ci alquran di waa ji ñuy ñaan pour tabax tàndarma bii macha allah tàndarma bii ngeen jàkkaarloo beneen baa ngi nii Madinatu Munawwara la jugee sallallahu alayhi wa sallam ma jàpp xeebu bi nekkee ma xam lenn ci dayoo ma jéem a bàyyi ci ñun ma ne xaaral dikkal ma ma ne xaaral ma dem ci ay meññeent tàndarma yónnee ko maamu ñu jëmbat ko Medina Baye ziyaara ko bàyyi mu jugee ci ñun sallallahu alayhi wa sallam te bàyyi na mu ne lu madame jënd ko def ko ci ay cargo amal ko mu ñëw mu ñëwee sëñ maama mu ngi ci téem ja mu jël ko ren bu ngeen demee ca kër yaa xam ne moom tool bi bu fekkee mu yooyu nekk fa ba dina mun a la bàyyi yii nekk aussi ñu ngi nii sa wax ci jumaa ji ak kii ma barke yi bi sama xam nañ ne tey bañ a dem noonu la ko doxalee woon keroog ne la wax waaye bu njëkk dafa tànn moom mooy naar gànnaar mooy ni samp woon kër ci sama Mahmoud kër su amee amoon kër ñaar yi moom nga ñoom la rek suñu xale yi dañ daan dem ci wax mu ne naar yi dañ ko defoon ngir bëgg ci bàyyi ko yëngu sa bàyyi mu ne keroog bàyyi dafa génn tatagal leen mu ne dina bàyyi jaay ne ree rek rek ree yoo xam ne ak mbégte ko gis ci moom mu ne waaye nag yow bi nga ko defal foofu moom beneen suuf si yàlla ndax yaa ngi ko jëlee ci dëkk bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafaa ñëwoon na salaala suufma dent na bi abadan tëri fii bi laa tëri bi rek boo doon sëñ Mamoun bëggalee kon maa ngi sant yàlla kon yi nekk waaye nag nekk mais yàlla ko wax fii la bàyyi toogoon na lu ma mën ci dëkk bi wax doon firi alquran 1925 ci jàkkaarloo nii foofu la bàyyi toogoon gannaaw moom lañ def jumaa ci kanamam doon firi alquran te téyewul jëlaat leen ci benn tafsir bu may alquran zaahir bi la téye am firi di firi alquran kon nag jumaa jooju ñu ci soppe yi ak ñiy déglu ci internet beeg ñëpp képp ku ci bëgg a def rek nañ fekk taxaw ba déwén mu sotti jërë ngeen jëf xam nañu wax ne joxe na tool waaye waaye Ba nee na na tool kon maa ngi jël kàddu gi ngeen ma pour a guddal waaye fi ci bàyyi moom mën ngaa saaraan dem ci ay géej yoo xam ne amul tefes yu jeex ma jox imam Habib kon mu sànni kàddoom su ko defee wax jumaa bi mu wax ko ñu mottali kàddu yi nag yaakaar naa bëreetul su ko defee ñi waaye balaa ñuy jeexal nag comme Cheikh Ibrahima Ndaw ñëw na daa ko xadrati jotaay bu tigi moo moom jotaay bu njëkk yi jotaayam la agsi na balaa may tëj rek ñu may ko mu yëkkati tudd yàlla su paree mën tëj ay kàddu rek su ko reer yaa ngi fi su amul ngànt ñu gi tam minuit lañ ko mën a si kër yi balaa une ñu tàmbali su ko defee ba ko jàpp guddi la bàyyi waxoon ne ci la yóbbu si laaj dama ñëwoon fii góor yi asalaamaaleykum wa rahmatulah abonnez sur notre chaîne Dahiratoul abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lay digil kese la dem si di baram